Seck Pouy dañ koy wax Abdou Karim Pouy dëkk waagu ñaay sama yaay di Fatou Diop sama tante dem si yàlla ji di Ngone Ndoy ñu koy wax Safiatu Ndoy mhm. waaw pour être juste te wax dëgg ah, njiitu euh, mën nañ ne njiitu ndakaar lu ndiiru ndakaaru la muy préfet bi nga xam ne moom ci jëmm boppam moom moom moo yore li ñuy wax ni que presque ah, li ñuy wax kaaraange gi nga xamante ne mooy gox yi ak su préfet am ñëw nañu vendredi toog ak ñun ah remonté ñu le moral xam ne àdduna amul solo lii mun na dal ku ne ci kër àdduna ni ah kilifaam moo ko yónni ndaxte toogin bi ñu toog fii ci mbedd mi depuis euh, yàgg na mu 45 ou 47 jours xaw ma su ma ko jàpp du yoon parce que si voie publique la ñu toog te ñu xam ne dëgg la wax tamit boobu foofu. mun nañu nag dama bëggoon ngeen jël bagage yi ñu wut camion ngeen dem ñi yóbbu ko comme que mu ngi guddi police escorté leen ngeen dem ngeen yóbbu ko ci centre culturel bi ñu nangul ko ko. ndaxte kilifa la te kilifa moo ko yónni waaw ci sama wax keroog ma ne ko mënoon nga sax bañ a wu di ñëw parce que am na leneen loo xam ne te war nga ko mën a war nga ko mën a doxi waaye comme que dañ laa yónni te nit bu la yónnee wóolu la da nga war a dox yóbbante bi ma ne ko dinañ ko def ci nu mu gën a gaawee waa ba mu waxee ñu waxtaan ci xam nga jàmm sante kaf ree Euh, lum ñu sant te kilifa sant ko ko te ñu bëgg ko ñu xam ne ci déew doomi réew mi la bokk ñu nangul ko ko defal ko ko jël suñuy bagage daal di indi fii si centre bi daal di toog noonu la mbir mi demee. bi leen indee ci centre bi ak léegi ñaata ci ay bés la war a toog. waaw depuis defe naa euh, trois jours la def nañ fi ñetti fan. est que ci biir ñetti fan yi moom yónnee na fi ndawam wala ñëwaatal na fi bopp. parce que ku dee yàgg sa bàmmeel boobu ba léegi gisuñu ko man jëm naa ko tànte sax benn yoon pour woo ko nekk ah ñu ngi yóbbu bagage yi mais guddi na parce que bañ doon yóbbu bagage dañ ko yóbbu ba huit heures passé presque boo seetee te comme que dañuy tere rassemblement ak couvre bi ma woo ki nga xamante ne moom moo commandé HLM expliqué ko sama cas mu ne ma waaw dëgg la mu ngeen jël bagage yi ngeen yóbbu ko ah mais amul benn problème bu ñu paree nag ngeen toog fa ngeen war a toog ma ne ko ba tey baax na ci lañuy def loolu te amul benn problème wax dëgg neex yàlla. ñu gisoon ne malgré couvre-feu bi yéen yéen a ngi woon foofu ci mbedd mi euh, naka ngeen ko doon dundee jamono waaw di ko dundee sant yàlla suñu borom rek parce que suñu borom moo ko nammee woon noonu muy lan ni Covid 19 bi ci mbedd mi la ñuy fekk duñ fekk suñu biir kër. ah ñu baal ma ci loo xamante ne euh, du kàddu gu ñagas sax am na ñoo xamante ni am nañu àdduna ak lu ci biir ndeysaan waaw ah, muy jëm si yàlla si Pape Diop boo ko xoolee lu mu amul ci àdduna amul lu mu liggéeyul Sénégal amul lu mu liggéeyul France amul waaye dundul ak ñun euh, Covid 19 ba mu jeex ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare ajana moo ñi nga xamante ne képp koo xamante ne génn nga ci àdduna te ngay julit ak ñu du julli sax yàlla mun na ko te ci yërmandeem ñu dund ko dundin boo nga xamante dañ ko nangu suñu borom moo ñu ko teg ñu nangu ko ba mu jeex takk mu mat 47 jours xam nga te ñun nous nous étions exposés parce que li tax nañ la ñu feebar bi ci ay bantak ay weñak xam nga ay kopp ak ay kudd te ñun suñu yëpp a ngi fa woon ñu xam ne ko ñun yàllaa ñu sàmm waaw mënoon nañ nekk ci biir kër gi duñ ñu génn. feebar bi dal ñu ñun ñëpp mari day taali kon lu ñuy wax kon kay day kon kay lii sant yàlla suñu borom la di jaam nag bu la nattu dalee da ngay sant yàlla delloo si waat sa bopp ci yàlla xam ne yàlla jenc na beneen yàpp bu ñuy wax gejj beneen yàpp bu dul gejj wala keccax comme ni ñu koy waxee yaa ngi dégg ci biir loolu ñu sant waa waagu ñaay ñi nga xam ne ñoom lañ fa nekkaloon guddi ak bëccëg mag ak ndaw muy euh, imam bi di chef de quartier bi di xale ba si ndaw parce que dund nañ ko ak ñun ñu xam ko dund nañ ko ak ñun ñu ñàkk ko bañ xam dund nañ ko ak ñun loolu moom moom lu ma mën a seede la. Euh, ñu gis ne depuis lors euh, boobu léegi à part préfet bi ñu ngi lay laaj est-ce que am na beneen autorité boo xam ne ñëw na fi ci yéen. waaw pour le moment nii may wax ak yow. yàlla rek moo tax may wax maire bi ah ñëwoon na fa mooy ci la sànq bi il était venu avec Ismaïla Gueye ñëwoon na fa ak euh, conseiller ah comment il s'appelle encore Arona Coumba Ndoffène mais c'était pour voir les documents nan la demee moom loolu ko fi indoon pour xam documents yi nan la demee. Euh, depuis lors est-ce que am na acte concret ñoom bu ñu waaw am na loo xamante ne maanaam mun naa ne euh, tungu ne du teew boo toogoon léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi diggante quinze heures quinze heures trente parce que lu may wax rek toujours man dama bëgg mu Sénégal yi déglu ko xam ne lu may wax toujours du ma ci tartari lu positif lay wax lu nekk laay wax boo toogoon léegi tey la lan vingt Ah, mille vingt 20 2004 20 24 2020 muy lan lundi boo toogoon léegi léegi léegi léegi am na ñu yónnee ne ñu ngi ñëw ñu jox ma rendez-vous ba gis nga ko ba ma leen may ma wax téléphone yaa ngi dégg te mënaguma wax nag tant que ñëwaguñu bu ñu ñëwee bu boobaa nag dinaa mën a prononcé wu ci loolu woo nañ ma depuis dem ñi ngi may woo nee na ñi ngi ci yoon bi di ñëw te xam naa ni peut-être ci wàllu nguur gi lañ bokk moo tax mënu guma ci prononcé tant que gisaguma leen parce que nit ki buy wax day wax loo xam ne moo am dañ ma wane ñu ngi ñëw maa ngi toog di xaar. Euh, ñu gis fan yi ci réseaux sociaux yi am ñuy def ay collecte de fonds est-ce que ñoom yëgoon nañ ci ak yéen wala yéen am ngeen ci benn. Euh, waaw loolu dama ci dama ciy dellu si dama ciy dellu si waat encore am na ñuy def collecte am na ñoo xamante ne ci jëm boppam xam nga euh, ku ñuy wax xaw ma abi la tudd xaw ma kooku yónni wuñu yónni wuñu ko ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoom ñoo jël volontaire di ko def am na ñoo xam ne ñëw nañu ku ci mel ni euh, nu mu tuddati euh, Mala Barom ñëw nag démb mais man instant ma dama doon wax téléphone fële gis nañ samay sœur waxanteeg ñoom am nu mu jëflanteeg ñoom ah waa am na beneen chaine bi nga xam ne ñëpp a ngi koy gis xam nga parce que ñoom ci jëm boppam am nañu compte boo xamante ni compte Orange ne la tijji nañ ko. koo bëgg jël ne da nga ko fay dugal mun nga ko fa jàllale en cas échéant ci loolu am na compte boo xam ne tijji naa ko muy compte bu bees parce que maa yow euh, yow defe naa ne loolu mun nga ko seede ndaxte dama la woon xaar ma maa ngi nii di génn foofu numéro compte baa ngi nii numéro compte baa ngi gis ngeen bu baax waaw numéro compte bi bu mu jaar sama loxo ku bëgg dimbali famille bi pour ñu récupérer lu ñu moom ak lu mu munti toll bu dee dërëm bu dee ñaar dërëm na ko fa dugal ñu jox ko lu muy laaj moom xamaguñ ko su fekkee da koy laaj ñu dugal ko ca biir compte ba bu mu jaar sama loxo bu mu jaar ci loxo kenn mu ngi nii ku bëgg dimbali famille bi nag laa wax te nga am yéene bi ne bëgg naa leen dimbali numéro compte baa ngi nii mi ngi nii mën nga ñu ko waaw ci fan lañ ko domicile waaw nga ne ko domicile waaw poste la poste la adresse baa ngi nii poste liberté mais poste boo dem dugal numéro compte bi incha allah dinañ ko jot boo buggee sax mun naa liir numéro compte bi su ko defee ñit ñi xam ko ni que bu mu jaar ci loxo kenn na dugg poste ñun liñ ci def ñu def ko ci bonne volonté nag bu ñëw ne jëndal naa leen kër gi dugg leen ah ñu xam ne ndek kooku yal na fi yàlla fayal waaw léegi numéro compte bi vingt cinq 25 107 012 40 après mu def 10 49 97 60 10 11 39 M loolu mooy numéro compte bi boo ko ci dugalee incha allah ah bu nee na 400 millions la kër gi di jar bu ko fa nekkee tamit ñu jox ko ñun suñu kër rek lañ soxla parce que li tax ñu ma ne suñu kër lañ soxla ah, patrimoine la suñu baay balaa muy génn àdduna dafa toog ñu toog ñun ñëpp mun nañu ah kër gi kër gi bu ko kenn jaay xam nga kër gi bu ko kenn jaay dëkk leen ci dëkk leen ci seeni doom dëkk ci seeni sët dëkk ci seeni sëtaat dëkk ci daf leen ko kër patrimoine lébu yi loolu la ñu xam du benn famille te kam famille bi ma xamal la si tuuti bariwul dama ciy dellu si waat keroog naa ko boo duggoon kër gi ñëw tu mu nekk nii nga na leen kam moo bokk ndey ak baay dañ naan ñun ñëpp bokk ndey ak baay amul xàjjal ak seen amul xaj seen. dee moo tàqale suñu baay ak ñun sunu tant ak ñun sunu tant ñi mën nañ ne ñu wax ngoone ndooy waaw ñaay ngóone ndooy ñëpp moom lañ ko xam ne nañ la ne mooy aaw moom moo ñu yar man ba ma feree lañ ma ko jox moom ma dugal alxuraan moo ma dugal néegu góor moo ma takkal soxna moo ma ngénteel Babacar sama doom bu ma tuddee Babacar suñu taaw loolu moom sama baat ci kaw fu ma toog dama koy wax aw ma ci lu ma ciy dellu gi ginnaaw sama yaay bu ne bàyyi leen ñu bañ waaye bu ne bàyyi leen ñu bàyyi kon foofu kon benn famille bi la waaye nag waa ji lu mu def dafa bëgg tas famille bi waaye mënul tas bu nekk ki nekkoon Asie ki nekk Europe ki nekk Suisse ki nekk feneen teewul toujours xol yi dañuy boole nekk benn ñun loolu la ñu xam te loolu la ñuy dund waaw. Euh, ginnaaw loolu ginnaaw collecte de fonds bi bi bi nga xam ne am na yoo xam ne yéen si joxe seen accord euh, ñu gis fan yi ci réseaux sociaux yi benn femme bu génn ne daf leen may kër loolu dëgg la wala. waaw loolu cest à moom boo defee boo liiree vidéo bi si suuf walla ci kaw ah ak lu muy wax si suuf olof gi du benn parce que moom je donne à la famille Pouye une maison là waa ji mu moom ndaw si ba muy traduire mu ne dama leen abal kër kër gi ma leen di abal parcelle la nekk léegi kër gi mun naa dëkk jigéen ñi si suuf am na néeg bu nekk ca kaw ah góor ñi nekk fa loolu la wax waaye waxul dama leen di may nit buy wax nañu bàyyi yi nga xamante ne naka su dul noonu la yaa ngi dégg parce que lu nekk mu koy dégg lu nekk mu ngi koy dégg te xoolal wallahi azim sama bàmmeel laa toog moom defar rek rek rek la bëggoon pour rek ñenn jigéen ñi dem ñenn góor ñi dem mais loolu dafa nekk loo xam ne dafa xaw a tiis si ñun dafa xaw a diis si ñun te mënuñu maanaam xajuñu fa maanaam boobu mu la ma lu ma bëgg wax daal xajuñu fa buñ fa xajoon jour ba mu ñu ko waxee jour boobu la ñuy dem toog ba pare nag continuer def lu ñuy def. est-ce que moom ñëw na jokkoo ak yéen wala daf ko wax ci réseaux sociaux. non moom jokkoo na ak man jooy na wax na lu ne ma ne ko dëgg la mais moom ba mu koy def tàgguwuma su ma tàggu woon dinaa ko ne ah loolu de xaaral ñu xool ñu ngi déglu ñu ngi def ñu ngi def nii te dégg naa ci ay wax ñu ne dañuy jox kër ah, kër almadi ba pare jox ñu xaalis am na ñu koy wax ah, dégg naa ñu naan xaw ma euh, euh, ñu ngi koy waxatee euh, Aly Ngouille Ndiaye ah jël la dossier bi. waaw loolu ñu bëgg lañ la cee laaj dañ ne dossier bi mi ngi ci loxo Aly Ngouille Ndiaye jamono ji est-ce que loolu ay wax yi kasaw kasaw wala. waaw léegi xanaa ñoom ñoo yëkkati dossier bi jox ko Aly Ngouille Ndiaye ah ñun Aly woowuñu. yónnee fu ndaw yónnee fu ah, à part préfet mu yónnoon fu ñu dem à part loolu pour mu dem gisuñu ko yónneewul gisul dossier xamul nu dossier dossier waaw. ñu ngi koy takkal nag ci loo xam ne bokk ci xamu ci xamul nu mu demee man damay euh, nga nit ki bu ñu ko waxalee loo xam ne amul mu jógee ci man nga xam ne dafa takk ci man dama koy démentir bu amee ma am na bu ñu may rey dañ may rey waaye bu amoon dama naan am na Aly Ngouille Ndiaye gisul dossier ministre de la justice gisul dossier président gisul dossier xam nga kan moo fi gis dossier sama avocat mu maître Abdou Dialy Kane ak avocat beneen parti bi ak euh, ñu koy waxatee euh, huissier Rasoul Johnson waaw ak Bokar Arfan Ndao ñoo ñoo gis dossier ñoo ñoo xam dossier bi te nañu bàyyi di wax naan euh, dossier bi mi ngi ci diw mi ngi ci diw mi ngi ci diw nit booy véhiculer wala ngay bind sa article na leer na leer loolu laa bëgg leeral Sénégal yi ne Aly guy Ndiaye gisul dossier ginnaaw gisaalul dossier ci man lu ma xam. jamono ji préfet teg leen fii ci centre socio culturel bi lan mooy ci seen toogaayu négandiku maanaam lan ngeen di xaar jamono waaw lu ñuy xaar non nga may balaa may dugg ci loolu balaa may dugg ci loolu am na benn euh, chaine bu publier na démb damaa demoon Cour suprême Cour suprême day liggéey dimanche man ma demee Cour suprême lu mu fi wut. jamono ji sax audience dañ koo tëj. waaw dama laaj rek kooku bind loolu xanaa ba mu koy bind xamul woon ni démb dimanche la woon ah xanaa xamul ne audience dañ ko tëj man au moins nit la audience lu dul détenu ba ci lu ma xam. tribunal grande instance juge ba procureur ba ak avocat ba keneen du dem man la laay wuti cour xam nu ma demee la laay wax man la mbor fii damay taxaw naan damay réclamer la laay réclamer la laay réclamer si justice bi justice bi dañu def seen liggéey ba pare nañu bàyyi di wax lu amul loolu mooy yàq Sénégal Sénégal des fois day wax dëgg waaye yar saay xar mi da ciy yokk karaw lan laay uti cour suprême man kan laa xam cour suprême man xaw ma kenn cour suprême tribunal bi sax xaw ma fa kenn ku du sama avocat kon boog nañu bàyyi yoon yi ma dellu si si li nga wax ni que euh, si centre sociale bi ñu ne bu ñu toog waaw dañ fi toog parce que préfet moo ñu ne ñu toog ñu toog ak njaboot gi peut-être am na lu tax mu wax ko ñu ngi toog di xaar nag ñu daal li ñu xaar mooy lan parce que fii boo seetee fii une famille ñu fi dundu parce que li tax amul benn hygiène dama koy wax. fii war nañ ko liggéeyaat toppatoowaat ko fii amul benn hygiène boo demoon si douche da nga naan mari day taali te gis nga fu mu nekk ni bagage yi fii la boy di fanaan néeg bu ndaw bee xool ko ah, amul benn hygiène moo tax ci biir wax sànq nee naa la am na ñuy ñëw dama leen di xaar moo tax bugguma prononcé sew ci loolu tant que gisuma loo xamante ne lu concret la. Euh, lan nga bëggoon wax te laaj li ma bëggoon wax daal te laaj ma ko mooy na seet ci yàlla sunu borom. ni nga xamante ne moom moo ñu bind bind ko bind waajuram bu góor bind sama waajur bu góor bind képp kuy doomu aadama mu seet digganteem ak boroomam te xam ne àdduna dara jaru fi yenn yi te àdduna yàggatul man ku la nee dinaa dund lu ma dundoon moom ku ko wax dina dund lu mu dundoon dara wóoru ci sama wax sax mu egg quinze heures sax dara leeru ci mu delloo ñu lu ñu moom mu seet nag yàlla delloo ñu lu ñu moom bu ko ba dafee a ah, ñu sant ko gërëm ko bu ko deful tamit ñu xaar yàlla rek fi di euh, ñuy waxate volontaire mun na ñëw ne ñaata mu ne ko temps mu ne ko waaw am jox leen seen kër loolu dong la te euh, cheikh bi wax na ko de te dina ko waxaat te ajjuma boo ñëwee dina lépp dina ci leer parce que nag dina ñëw foofu toog ajjuma toog waxtaan ak ñun lépp dina leer bu boobaa nag nga xamante ne waxati na te waxam dëgg la may nuyu gi xam ne moo yore réew mi muy président Macky Sall di nuyu soxnaam muy yaayu waa sénégalais yi ak sénégalaises yi muy Marème Faye Sall a ah, njabootam de moo nekk ci tiis te tiis googu bugg nañu moom mu teggi ko su yàlla àndee mook mook boroom këram di woo sëñ mu Mountakha encore maa ngi koy wax sëñ Abdou Karim di woo sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim dama ciy waxtaan lu tuuti rek duma wax fu ma bokk waaye bàyyam euh, suñu maam maam fàllu mosuma ko gis fekkewu jamono waaye dama ko bëgg te ku bëgg sëñ fàllu war nga bëgg euh, sëñ Abdou Karim borom ma xaxlaa moo tax ma ne mbir mi na ko seetaan teg ci loxo di woo Pape say si say sëñ Mbaye si Mansour moom mi nga xamante ne moom moo yore tarixa tijaan moom ngoon ko tarixa tijaan yi bu demee fees bu toggul ci chaise bi kenn du toog maa ngi koy woo ni ko fu mu nekk nii famille Ndeye faatu Pouy dama ci day leer ak ku ñuy wax Mansour Pouy te mu nekk mbaaw ñoom la ñu génne seen kër fii waagu ñaay te góor gi sëñ Mansour moo ko jax sagaru njaam moo tax kon njabootam la ñu génne ma leen di woo waa laayeen yi ñoom dañoo bokk ci ñun ñun ñu bokk ci ñoom muy euh, Alassane Thiaw Laay maam li maam li laaj ci boppam ay sëtam la ñu génne ay sëtaati sëtam la génne mun nañu wax loolu parce que ñoom ñun dañoo làmb biir mbaaw moom mu làmb biir mbaaw piir waxatuma ko sax fukki penc yeeg ñaar lébu yëpp ñu ngi leen koy wax ne lii waaw ah, seen i mbir la mbir waa senegal la diaspora bi ñëpp a ngi woote ku ne am na la naqari papa Ndiaga Niang delloo sa xel si yàlla delluwaatal reculer c'est pas trop tard c'est pas trop tard delloo waatal sa xel ci yàlla nga delloo ñun lu ñu moom ñu dëkk comme ñu ñu dëkkoon àq baaxul àq baaxul man daal maa ngi woo ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn kenn te di woo sama di di sant sama jigéen di ñuy wax Daba Caam kooku depuis boobu ba léegi nalawul gëmul mook jëkkëram lu ne mu ngi koy jéem lu ne mu ngi koy def ma koy sant di ko gërëm di sant njabootam te di ñaan yàlla Sénégal fii yàlla def fi jàmm def jàmm ci réegu jullit jëpp te yàlla musal ñu si seytaane musal ñu ci dàqal ñu seytaane musal ñu ci pexe ab noon feebar bi nga xamante ne moo lëmbee àdduna yàlla na ko yàlla saafara àdduna ñëpp delluwaat si seen i économie defaat seen i économie dox lu ñu war a dox ñëpp jëm kanam te kenn kenn kenn kenn kenn bañ a manqué koor gi ñu jëm yàlla yàlla def ñu war ko ci jàmm dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim